alors je t'entends parler de mandat de sept ans. Mm-hmm. yaa ngi ci ba tey. waaw xam nga. un seul mandat de de de sept ans. ça veut dire que yow da nga ñu nar a yóbbuwaat ci ay réformes constitutionnelles ak ay référendum ak yooyu. non xam nga alors que cette histoire là on veut que ce soit figé. Euh, dëkk bi dëkk bi dëkk bi dina am référendum y a aucune constitution qui est non, par force Sénégal day am référendum ah mais parce que constitution bi ñu yor constitution France la dara baaxu si enfin dara baaxu c'est mais lu ci bëri baaxu ci constitution bi ñu yor. référendum pour changer mais pour changer de république. ah bon ah oui ñun dañuy jógee la république du Sénégal bi nga xam ne de moo ko xalaat Senghor ñëw appliqué ko Senghor ak Pompidou ñoo bokkoon classe la Senghor doon def la Pompidou def xam nga man j'aime Senghor. parce que man ci littéraire changer république bàyyi bàyyil ma yeggali c'est-à-dire tey moi Senghor que j'adore dafa toog en juillet 1967. mu dem seeti Pompidou ñoom ñaar ñoo bokkoon classe ñoo doon jàngandoo Pompidou nekk premier ministre de la France Senghor dugg génne taxaw vidéo baa ngi ci YouTube dem leen xool ko vidéo noir et blanc bu rafet Senghor génne taxaw ne yéen waa France def ngeen cinq cents ans di topp ci romains yi di roy ci romains yi nan la ñuy li nan la ñuy nan la ñuy dundee maanaam di leen roy pour yéen ngeen am dund bu baax ñun Sénégal bi di door a am indépendance dinañ def cent ans maanaam téeméeri at boo xam ne ci yéen la ñu nekk di di roy man j'adore Senghor mais je suis pas fier de cette phrase roy boobu ñu bëggoon nekk di ko roy France Senghor wax ko 1967 commencé ko appliquer depuis 1960 ci lañ nekk ba léegi te ñun duñu France tey ku jàngul ku mënul bind français déggoo français mënoo ko wax mënoo nekk président de la République du Sénégal fi ñu ko teg te dëkk bi ñi ko yor ci xam-xam dégguñu français ñi ko yor ci koom-koom dégguñu français léegi yow nga def sa constitution bu rafet def ci benn phrase ne ku déggul français mënoo ko bind ba ñuy tooñ baara dolli du baara dolli la ma koy nuyu ñëpp di reetaan mais c'est un scandale dans un pays comme le Sénégal 63 ans après les indépendances nga ne constitution boobu doo ko doo ko doo doo ko changé. da ngay changé république. ban forme constitution boo xam ni am na publication Facebook bu moo defee xaw ma y' a 2 ou 3 nga ko. dama jël dama doon ironiser ma tegle toutes les phrases yi nekk ci constitution bi di wax président la république lan la man président Sénégal lépp la mën xaw ma yàlla xaw ma daggitu yàlla la. xaw ma malaaka la xaw ma daggitu malaaka la lépp le président du Sénégal mën xam nga lu tax parce que loolu yeneen pays France loolu tam ma koy rappelé xale yi xam nga ñun dañuy defee ne ñu ngi roy tubaab yi rek de façon générale tu sais que cinquième république ak ni muy fonctionner nii démocratie bi premier tour deuxième tour tu sais que loolu France la yem parce que ñun xamuñu leneen moo tax ñu topp France ci loo xam ne jiguñu mais ñun tey loolu bi muy am mais de xam ñëpp xam nañ histoire de France 1946 bi guerre bi jeexee mu ñëw na leen sauvé naa leen mais pour ma continuer jël ay responsabilités ci dëkk bi dangeen may jox tous les pouvoirs ma gérer mooy le fameux discours de Bayeux. gars nekk déedéet loolu mënul am mu gedd bàyyi ñu dawal 46 ba 58 muy ñaata 12 ans guerre d'Algérie dugg France jaxasoo ñu woowaat ko mu ne leen waxoon naa leen di ngeen ma soxla 1946 laa leen waxoon da ngeen may jox tous les pouvoirs man kese de Gaulle ma téye réew. mais ñu votal que sa constitution de 1958 constitution de 1958 boobu daara la ci constitution Sénégal bàyyiliwul te Sénégal du France Senghor du De léegi tey nan nga mën a expliquer tey par exemple que bu dee da nga yor une école privée buy jàngale français état du Sénégal la lay jox subvention di la jox xaalis boo yoree daara wala ngay jàngale li ñu wax météo arabe état du Sénégal du la jox xaalis. nga ne constitution boobu doo ko changer. mais da ngay changer république. Euh, bonne façon république. la république sénégalaise. concrètement. la république sénégalaise boo xam ne da ngay. la république elle est sénégalaise. non non non non c'est la république du Sénégal. Ah. bi ñu am nii. Ah. c'est la république du Sénégal boo xam ne mu ngi jógee ci colonie du Sénégal. Il y a la république française une vraie république qui a des colonies et bi ñuy jox indépendance colonie yi on n'a pas créé ni une république française ni une république sénégalaise ni une république ivoirienne mais on a recréé la république loolu loolu du teewul mais mais xam nga ba tey non xam nga a fi ma concrètement mais euh, ban façon république ngay indi ay du ñu subventionné le maître arabe mais loolu mooy dë mais loolu mooy les loolu du changement radical non le changement radical fi ma toll euh, le changement radical le poste de président de la république foofu laa toll le président a trop changé mais léegi nag li ma ci changé ah. loolu da ngay wut beneen émission nga jël le livre sur la démocratie de concordance c'est un livre de 356 pages qui ne porte que sur les institutions j'ai fait un nese boo xam ne dama expliquer lépp mais tey bëgguma émission bi jël loolu moo tax parce que li ma doon expliquer mooy sept ans yooyu may proposé mais man xam naa ne sept ans yi mënuñu ko def léegi nii parce que bu ñu ma falee man Abdourahmane Diouf ñu ngi ma fal ci constitution bu 2001 constitution bu 2001 mooy wax ne ñaari mandat ngay def du passé cinq ans foofu nag la homme politique bi di am lucidité intelligence situationnelle nga xam ne débat bi actuellement du loolu mais man gëm naa ne bés bu ñu waroon changer constitution indi république sénégalaise nga xam ne da ngay jëli sëriñ si ñu wax la lu ñu xalaat nga jëli jigéen ñi nga wax leen nga wax leen lu ñu xalaat nga jëli ba tey waxuma dara lu concret ci lan. da waxu ba tey waxuma dañuy. changer ma non man maa choisir de forme républicaine. man maa choisir ban nouvelle forme. bu ma ci duggee la république boobu di jël. Maïmouna je veux pas consacrer mon émission à ça. dama ne juste en passant xam nga loolu. on en a bu nga loolu. ndax da ngay ban ban type de régime. non eh, man gëmuma ay régime lan mooy doon les relation entre les pouvoirs exécutifs législatifs. mais loolu euh, et et loolu moo nekk ci livre bi loolu laa la wax ne tey. mais livre bi nit ñi liiruñu ko non non non xam nga politique dafa am contexte. contexte politique bi tey du ma ñëw di expliquer loo xam ne moom laay wax sur la démocratie de concordance bi nga fiy ñëw di expliquer nga ne ça a fait de bruit mais ñu doon wax nag ñu doon wax ñi ba mu def beaucoup de bruit quand j'ai sorti le livre déggatuma leen. parce que libre bi argument yu baax laa ciy teg bon je te donne deux ou trois exemples pour satisfaire parce que bëgguma débat bi demee foofu mais tey par exemple man dama wax ni président de la république pour nga dindi pouvoir am yooyu yëpp loolu mooy démocratie de concordance mais da ngay constitutionnaliser les postes de les postes ministériels c'est-à-dire xam nga tey président mën na ñëw def vingt ministres vingt cinq ministres quarante ministres ministres yi nu ko neex na leen di tuddee bu ko neexee tey mu def bassin de rétention suba mu def élevage et cetera. donc nañ ko constitutionnaliser les appellations y compris les appellations et ça j'ai fait l'étude 1960 ba léegi boo ko jëlee tous les termes yi nga xam ne utiliser nañ ko mu nekk ay tour ministère boo ko jëlee nga boole ko paasewul vingt et je propose que du ñu dépenser vingt ministère léegi boo ko constitutionnalisé loolu mooy deuxième élément bi indoon polémique bi mais ñi ko doon polémique yépp ba ñu liiree livre bi déggaatuma leen ci lu ñu wax parce que dama ko argumenté parce que quand je dis que candidat élection présidentielle bu nekk danga koy jox li nga xam ne moom la mérité moom la ko askan bi jox parce que suñu démocratie bii te dinañ ci ñëwaat ñun ay minorité ñoo ñuy gouverner ma ni boo leen demee élection présidentielle nga ni ki jël pays président bi par exemple cinquante soixante pour cent la am 60 pour cent yooyu mooy doon tant de pourcentage ci ministres par exemple nga ni 12 ministres ki am 20 pour cent dina am par exemple 4 ministres et cetera et cetera nit ñi ne ah kon moom dafa bëgg affaire transhumance ma ne leen déedéet. transhumance mooy comme système bi ñu nekk dans la démocratie. mais ñun ñooy bénéficier wu de loolu parce que euh, supposons on a cinq candidats. waaw xanaa xanaa da nga naan à partir de cinq pour cent. boo ko amee tu yooyu yëpp mu ngi ci livre bi. waaw ah. c'est-à-dire que déjà ñi bokk ñi jàllul parrainage c'est des opposants boo amul cinq pour cent mënoo bokk ci loolu donc dafa am benn système de repré ay tableau dama ko expliquer ci livre moo tax ma ne la bëgguma jël temps tey nekk ci loolu parce que dafay jël sama temps d'antenne te li ñu war a wax dafa bari mais du ay waxu naxas ak kandang dama ko réfléchir. mais mandat 7 ans bi ko euh, testé ko mandat 7 ans xam nga lan bon déjà pour ma terminer foofu donc dama proposer loolu parce que loolu day wàññi doole président gis nga dem naa ba proposer ne. bu dee da jël deuxième nga am trois wala quatre ministère le président de la république am na toujours pouvoir de nommer le ministre mais amul droit nommer plus de trois ministres ci mandaawam xam nga lu tax parce que bu dee askan bi moo ne Moussa Diop mii mooy troisième am na deux ministre bu ñëwee indi ministre de l' agriculture président dàq ko mu indiwaat président ministre de l' agriculture président dàqaat ko xam na ne kii bu troisième bi muy indi président mun ko dàq donc pour la première fois nga gis président boo xam ne il est obligé de travailler avec son ministre beneen critique bu ñu doon wax ma ne leen lii ñuy def déclaration de politique générale tey au Sénégal amul benn sens dañ gis tubaab yi di ko def ñu koy def ban suivi yow mi nga xam ne yaa ngi suivre politique nga mës a gis premier ministre def déclaration de politique générale ñu topp ko ne ko lii yaa ko waxoon def nga ko defoo ko ñu sanctionné ko mani parce que dañ ma doon wax naan bu dee da nga indi ñu bëri ñu duggandoo ci gouvernement bi alors ko ñoom ñëpp bokkuñu woon programme nan ngay doxalee est-ce que président bi warul doxal programme foofu tam dama limiter les pouvoirs du président mani ku ci nekk sa programme bi nga ñëwee ba am ay membres ci gouvernement bi programme yooyu la ñuy jël def ko un programme gouvernemental commun programme gouvernemental commun boobu ñuy d'accord ñoom ci biir gouvernement bi moom la ñuy yóbbu assemblée nationale mu nekk la déclaration de politique générale cette déclaration de politique générale dafay devenir un document obligatoire boo xam ne mooy doon la feuille de route du gouvernement bu ko gouvernement bi rek lawul assemblée. donc yow boo ñëwoon jëloon réew mi benn mandat bu sept ans ngay def. non mënu ma def benn mandat de sept ans <laughs> xam nga may mun a bul xam nga li moo tax ma ni la tey bu ñu ma falee. soyons très pédagogiques tey bu ñu ma falee <laughs> mu ngi wax démocratie de concordance. waaw benn mandat waaye moom bëggul def benn mandat. déedéet déedéet li ngay def moom da ngay ruube te sénégalais xam nañ ne da ngay ruube. dama ni la tey bu ñu ma falee. fan lañ ban constitution lañ may falee. bu 2000. Euh, bu 2001 mais constitution 2001 lu mu wax. mais da nga ne da ngay def référendum. waaw lu ma bu may def référendum loolu beneen débat la. déjà est-ce que sénégalais yi bëgg nañ def li bëgg nañ nangu li may def wala déet. oh no Abdourahmane no non non non non non. waaw boo ñëwee nga présenter euh, un livre. Maïmouna où tu parles de démocratie de concordance. où tu dis tout ça. waaw boo ñëwee la première chose. waaw tu bénéficies de ton état de grâce. da nga war a organiser. un référendum. pour mun a changer la. constitution mais référendum boobu taxul. mais référendum boobu taxul ñu def ma sept ma ne xam nga li may wax nii sa simple yow da nga bëgg a ruube rek xam nga tey. ku ne damay def benn mandat de sept ans. constitution bi na ma yow cinq ans lañ la fal. Ah. yow kay xoolal la côté positif est-ce que pourquoi doo ne ma mais est-ce que Abdourahmane kon pourquoi doo def un mandat unique de cinq ans. c'est ça le côté positif des choses que tu dois voir pas gis leneen parce que man bu ma ñëwee tey kenn fol kenn voté lu ma pour sept ans. dañu ma voté pour cinq ans mais kan moo la wax ni. on a eu ce débat là. non et vous débat avez, et vous avez reproché question eh, de personnalité. on a eu ce débat vous avez reproché à Macky Sall. Euh, vous vous la vous lui avez vous l'avez accusé de s'être renié parce que dafa ñëw. déedéet yaa ngi non yaa ngi boole yu bokkul mu ne non xaara xaara dafa ñëw ñu fal ko. ci pour un mandat de sept ans. Mhm. moom mu clamé urbi orbi pendant la campagne électorale. waaw ne il va faire un mandat de sept ans mais ngay wax ak li may wax mu dem conseil constitutionnel. waaw jox ko. ak moom moom ne ko mënul nekk. waaw li ngay wax ak li may wax bokkul c'est que yow da nga bëgg xumbal émission bi rek Macky Sall dañ ko fal sept ans mu am droit sept mën na def sept ans day dem cinq ans ñu dem ñu ne ko mënoo wàññi mais man sama cas du loolu man dama ne mandat unique de sept ans. mais man bu ñu may fal cinq ans lañ may fal donc kay ay problème mu wàññeek yooyu. amu ci da ngay purger sa mandat cinq ans. ba pare mais bu ma neexee. nga doog a mettre en œuvre loolu nga war a gis mandat unique de sept ans. déedéet déedéet mais kan moo la wax ne du ma ñëw def mandat unique de cinq ans. ah kan moo la wax ne du ma def mandat unique de cinq ans. wax ko mu leer loolu moo jekk. loolu moo jekk ci raisonnement bi au lieu que ngay xool. côté négatif fu mu nekk loolu nga ciy xool. man da ngay donc da ngay donc boo ñëwee mun nga def mandat unique de cinq ans. c'est une possibilité parce que bu ñu ma falee. loolu laa am droit bu ñu ma falee du li ma neex laay def li askan bi bëgg laay def askan bi tey fi ñu toll ci constitution def na ñaari mandat nga de cinq ans nga am mënoo ko wàññi donc sept ans bi ngay wax loolu leneen la mais man bu ma neexee man def naa mandat de cinq ans def na tu penses que pouvoir da man conception bi gars yi am ci pouvoir man aw ma conception boobu ci pouvoir may mun a man ku ku ku dama dama engagé wu en politique bëgg nekk président la république parce que dama yaakaar ne war naa mën a changer ah la vie des Sénégalais mais da ngay garder la forme républicaine de l'État mais loolu du changer loolu c'est cest à dafa am ay acquis yoo xam ne am nañ ko ah. mais constitution yi pour man li ci manqué bon un président de la bi dafa bari doole yi ma la wax nii ak yeneen ak yeneen yu nekk ci livre bi di nga gis ne dañ koy wàññi mandat de sept ans bi bés bu ci Sénégal yeggoon nga xam ne moom laay ñaan di nga gis président boo xam ne par force day liggéey parce que dinañ ma falaat ak duñ ma falaat du nekk débat le, le français que, reste là notre langue officielle. pas seulement. ak ban. parce que tey man gisuma français ban dooleel ban utilité la ëpp anglais. par exemple ak ban mooy nekk suñu langue. les langues nationales moom dañ ciy liggéey. mais xam nga loolu dafa laaj débat nationale mais pour man tey Sénégal foo toog man man tey man je n'exclus pas ñu fal ma président de la République ma dem Turquie wala ma dem Chine je fais mon discours en wolof parce que wolof laa dégg. bu doon président bu dégg pulaar mu def discours en pulaar bu dee ñu leen recevoir seeni ot loolu mooy fulla <laughs> attention euh, donc da ngay def wolof langue nationale langue officielle. le wolof dafay doon une langue officielle. léegi li ma li ma waxul loolu mooy laaj débat national parce que ñun ni ñuy bâtir suñu programme. Eh, eh, est-ce que demande di nga demander sénégalais. mais moom voilà jëm pourquoi moi je te dirai pas yow xam nga yow yow problème waaw may ma ma daaneel. Ah, yow nga indi problème amul. man dama ni la ma ne sa lii moom amul benn cohérence. may mun a cest dire que. le wolof vaut la même chose que le séeréer. que le pulaar que le soninké. mais est-ce que da nga dégg ma wax loolu man j'étais en de te dire que ñun suñu programme. du programme booy tëju ci néeg di ko bind da ngay laaj sénégalais yi ci ça que je suis en train de te dire yow kay yaa xumbal ne xam naa tey moom gisagoo yoon bi. non <laughs> gisagoo yoon bi mais loolu. loolu gis naa yoon bi c'est-à-dire yi nga xam nga yéen. xam nga non non non xam nga man avec de changement ba da ngay changer. du jarul changer non am na yoo xam dañ koy changer. da ngay changer du jarul changer le fait français. Ah. nekk la seule langue officielle du Sénégal. c'est une aberration. mun nañ ci yokk beneen c'est une honte. mun nañ ci man je n'exclus pas xam nga yaa ngi wax globalisation. affaire yi li Senghor daan wax enracinement ouverture ñun ñuy wax ne des fois da ngay universaliste des fois nga situation yi dama ko gëm c'est-à-dire que doo replier wu sa bopp ba nekk sénégalais kese parce que dafa am leneen loo war a mën a may adduna bi man tey je n'exclus pas. jël anglais teg ko côté français parce que anglais dafa am dafa am anglais dafa am njariñ. ça exemple mais ci langue yi foofu laa doon wax ngay ruube langue yi sénégalais yi ñooy décider sénégalais yi ñoom ñooy décider man li tax ma wax la wolof parce que man wolof laa dégg dégguma pulaar te bi ma lay jox exemple pour te dire que sa ruube bi jàllul dama ne la beneen président Sénégal bu dégg pulaar bu la neexee nga dem Turquie booy def sa déclaration devant Erdogan nga wax rajouter l'anglais comme langue officielle ça c'est la cohérence et c'est du progrès wax nii parce que encore fois programme yi ñun suñu programme dafa am ay séquences fin septembre mi octobre dinañ am suñu programme mu candidat Abdourahmane mais lu ñu ciy def idée bu ñu jël dañ koy jël testé ko waxtaan ci ñi nga xam ne ñoom la ci seen xel màcc par exemple idée anglais boobu man c'est fort forte conviction que dafa war a nekk une langue du une langue euh, officielle Commonwealth comme francophonie dama gëm ne Sénégal dafa war a bokk mais am na ñoo xam ne ñoo ma ëpp xam-xam ci loolu dama leen di jël jox leen ide bi na leen lool leen ci xalaat ak nan lañ koy defee mais mais man làkk bi ma dégg en tant que sénégalais man je n'exclus pas dem Élysée président de la République française recevoir ma ma taxaw paron de l'Élysée ma wax wolof bu boobaa damay ànd ak sama traducteur parce que bu may wax bu ma toggee palin perron de l'Élysée di wax sénégalais yi laay waxal du ma wax ak sénégalais yi loo xam ne li may wax téeméeri nit ñoo ci jël peut-être fukki nit ñoo ko comprendre ça ce sont des réformes majeures et c'est pas théorique parce que loolu dafa am importance ci ni ngay dindee complexe bi tey suñu président suñu homme politique yi da ngay wax wolof dangay wax français ñu ne non moom déggul français dafay def ay fautes nga wax anglais ñu ne non moom déggul anglais dafay def ay fautes mais nga wax li nga xam.